bis bu tiis sa ngéem lu loolu lay doon tey jile ca palais de rawatina saal ba ñu duppee Bruno Diatta mu nar a dalloon ndaje conseil des ministres gu mujj yéenekaay gi Sud Quotidien ànd ab juróom-ñaari at tey lay jeex ak it na ci ay jawdin yu ñu fa takkaloon ay ndombay tànk jeex na ba faw seenu pa takkandeer dootu fa xandaalu yéenekaay gi di Sud Quotidien Mohamed Boun Abdallah Dionne tey lay matal juróomi atam ci bopp primature doon ba Sénégal amee indépendance juróom-ñaari at ku dund at yu bari nag li la dese ci fan day daal di néew te borom kër gu nekk war ngaa waajal sa ndono loolu nag daa mel ne daganul ci wàllu ko politique bu ñu doylu yéenikaay gi di Les Échos ak Moustapha Diakhaté mi fa bàttale ay kàddoom doon kenn ci jege ñaale njiit réew mi Macky Sall moom ci boppam nday mbili gi sax la daal di gaaral ay kàddu jëm ci nekkoon wàllu ko ndono ak ka muy teg ci wetam ko ak kuutalam ëllëg ci biir bu ko xelam masa daj ne ñi ko fi jiitu Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade def nañu ko waaye amun ca ndam lam koy soññ mu jublu ci kay mooy parti APR ko jaarale ci yoon teg ko ci ay loxo yu wóor wóor na am déet ñi seeti tontu li ci yéenekaay gi di Sud Quotidien ak delluwaatu ko Bamba ca parti socialiste ginnaaw rek ba mu dajeek Ousmane Tanor Dieng waxtaan ak moom ci lu bari ànd gi nag di leeral ne digganteem ak secrétaire général bu parti socialiste amul benn pa ñagas-ñagas bu ca masa am xanaa kay waro woon la ci wàllu ko gis-gis jëmoon ci rek moom dafa masa gëm ma waaye daa nekk parti bu mag boo xamante ni bu benn pa élection bu ñu tëgg ci réewum Sénégal mu war koo wuute te nag lii jéegu bu njëkk bu ñu teg la rek ngir parti socialiste amaat geneen nu ko ndëgër lay ci géew politique bi mën caa siggi bu baax ëllëg ci biir tey moom Bougane Gueye Dany nag amul ndam ubbil enquête yéenekaay ak coow la doxoon ci digganteem ak colonel Ndaw amal nañu layo bi ba noppi la leen jotale woon kàddu yàq der ak tamit ërtal yu colonel Ndaw ne Bougane Gueye Dany da ko yëkkati teg ko ci deram loole nag la ñu ne ginnaaw ba àtte ba jibee yéenekaay gi ne benn pa milliard Bougane Gueye Dany war na jotee ko ki nga xamante ne moom moo di colonel Ndaw mim fi am lante woon ba yëf ya tere ji ca mu yoon yoonu marché la ñuy jël ak njàqare gi wéy di solo barab yooyee ci réewum Sénégal bërk démboo Njaay gannaaw Petersen ba koom-koom gu bari dal di naaw ngir ay lakk yu wéy di raatale Vox Populi ne Tambacounda ñoo jot seen wàll bik marché central bi la yéene kaay gi ne safara wa moo ko war ndombo amul benn puruq bu ñu bàyyi ngir sapeur pompier mën faa jaar ba yegg fay lakk gi ba tey nag kenn xamul lan moo ko sooke waaye lum ci mën di doon la fa dem ci àll lakk yàqu-yàqu jéggi na lool lool ñi dëgmal arène nationale jël sunu lamb yéenekaay Mame Ndassou yor kàddu kër ak énergie moo xëy tontu ñi doy dal ak di soofantal Modou Lo ci géewub lamb ji la mu xam le weesuwul na ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ko juillet àdduna bi yépp daañu xam ne Modou xarañ Lo ximilikuwaat na ci wàllu ko lamb ji dana dikkaat ci wàllu ko doole ci mbéykaayam tamit xoolaat nañu ko ba amatul luñ ci naatable jëm ci wàllu ko ndëgër lay ngir fëlaat wanewaat boppam ci géewub lamb ji ndax dana ci génn am déet ñàkkul ne laaj boobee la sunu lamb yéenekaay la koy xaar doon ñaari revanche ya nga xamante ni kon mën nañoo jàpp ne xalu safara la war a dox ci diggante mag Ama Baldé ak kii di Bombardier yi doon lu tere ne la promoteur yi njeexantu la saison bi